rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi watanala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin tey mooy sunu bindu fukk ak juróom ñaar mooy numéro 17 ci sunu téere masaalikul jinaan bu sëriñ tuuba radiallahu anhu wa nafa al ibaada bihi ñoo ngi woon ci jëf yi nga xamee ne danga koy dundale sa waxtu kon ñu nekkoon ci koor ak lu ca aju koor nag mooy lan moom la sëñ bi di ñëw dëgg dëggi koor lañ jublu ca biir koor ci sharia moom xam nañ ko ñe koor ci sharia mooy atte yi zahir yi nga xam ne mooy nit ki li tàmbalee ca fajar ja ca fajar ga ba bi jant bi sooyee du lekk du naan du def lu yàq koor loolu ku ko def rek ci sharia moom dañuy jàpp ne kooka woor na mu des nag koor ci baatin ci xaqiqa mooy dañuy xam ne koor ragal yàlla moo tax ñu dela woor loo laallakum tattaquun kon jubluwuñu rek nga xiifal sa bopp bañ a lekk bañ a naan kese kese noonu det waaye ak tàggatu la goo xam ne boo ca jógee da nga jële la ñuy tudde ak ragal yàlla moo tax boo wooree dañuy bëgg nag sa cër yi day woor sa xel mi sax nga góor góorgóorlu ci ba la ca mën a woor woor waaye boo wooree tamit nga bañ a jàpp na rek dañ laa dañ lay teg aw mettit comme ni ko ñenn ñi defee boo weeru koor ñëwee dañuy sikkal weeru koor weeru koor daa def nangam nga xam ne ñoom coono lañ ko jàppee rek jeex na nga ne moom duñ ca amee dara lañ ci yàlla musal waaye nga jàpp ne ab entraînement tàggatu la boo xam ne dañ la koy def loo ngir mu am lum jur ngir mu am lum jur nga xam ne loolu lay doon loolu la sëñ bi di jàngale fii kon ci wàllu tasawuf te noonu la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee nee na summa siyaamu fantabih lam yanxasir fi adami l akli faqat la taghtarir summa siyaamu topp koor nag summa siyaamu topp dëggi-dëggi koor fantabih na nga yeewu lam yanxasir ne tënkuwut tënkuwul rek fii adamil akli ci ñàkk lekk faxat képp dong laa tagtarir bul woru ci loolu bul defe ne koor mooy xiifal bañ a lekk bañ a naan rek rek déedéet fa rubba saimin barixaana aji woor ma al jamaati mbooloo ma buñ ko ma asoon loolu ma al jamaa ànd ak mbooloo ma laysa lahoo te amut fii ci koor ga siwal majaati lu dul ab xiif lu dul ab xiif nee na bari na koo xam ne ànd naa gaa nii rek woor ñu ne woor naa mu ne woor naa ba dog jot mu teg ndogom lu bari di dogu waaye kooka ca dëgg-dëgg li ñu tuddee greffe de la faim la doon def maanaam da doon xiifal waaye wóorut ndax lan moom dafa jàpp ne woor mooy xiifal fekk woor ëpp na loola fekk woor ëpp na loola lii nag euh, sëñ bi wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko wax ci xadis yonent bi sallallahu alayhi moo ne barixaana aji woor joo xam ne amul ca koor ga lu dul xiif lu dul xiif ak mar <laughs> lu dul xiif ak mar lan moo waral loolu mu am ca amul ca koor ga lu dul xiif ak mar moo di dafa yem ca xiifal waaye nag lañ bëggoon ca koor ga nag mooy mu jële ci ak ragal yàlla ah loola day tabarkàlla moom la defut waaw moom la defut al yu nee na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man lam yadaa xawla zuuri wala amala bi wal jahla fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa saraabahu aw kamaa qaal nee na koo xam ne yaa ngi woor bu noppi bàyyi nga lekk bàyyi nga naan waaye nag yaa ngi ca la ñu dàq koor yaa ngi ca géej ga yaa ngi ca carte yaa ngi def nangam yaa ngi naan damay passe temps damay def nangam nga ne jii moo def dara luy dundal soxol ci njàng mu alxuraan ak nangam nee na yàlla amul soxla ci googu kooku bàyyi gam bàyyi lekk naan yàlla nee na kooku moom loolu amu ca soxla amu ca soxla kon yonent bi sallallahu alayhi moo nettali xadis boobu am na beneen boo xam ne nii la ko waxee mooy rubba saa'imin euh, laysa lahu fihi siwal majaa bari an aji woor joo xam ne xiif rek la def aw kama xaala sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko kon nu ñuy woore ba mën a am tuyaab mu ne fa sawmu dëgg-dëggi koor an yasuuma mooy bu wooree kullu udwin cër bu nekk an kulli bàyyi lépp loo xam ne mooy walis lépp loo xam ne yuuf yufdi dana yóbbu fatan nit ki li sax wi jëm ci njuumte waaw ah, fatan cem si nee na dëgg-dëggi koor mooy sa cër yépp day woor bët bi day woor ci xool xaraam noppi bi woor ci dégg xaraam tànk yi woor ci dox eh, jëm foo xam ne yiw nekku ca sa gémmiñ gi woor ci jëw woor ci tudd deru jàmbur woor ci xaste woor ci nangam waaye woor ba nekk ba noppi nag nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci deri jàmbur yi kooku amul njariñ kon cër bu nekk day woor nee na koor daal mooy cër bu nekk ci yow day woor du def lenn loo xam ne da koy yóbboo mu am ca bàkkaar wala mu yóbbu ko ci njuumte am si nanga téye na jàpp lañ ko firee waaye mooy nanga nga téye rek nanga nga téye sa bopp anin nadari anin nadari walis di xool lil xaraami jëm ci lu xaraam loolu moom boo waree boo wóoroo sax nag boo wóorut waaye boo waree moo ci raw wal mashi ak dox jëm ci lu xaraam wa sam'i ak déglu jëm ci lu xaraam maal kalaami wax lu xaraam lii boo dañ la ko tere woon boo wooree nag xool loo xam ne araamut sax waaye amul njariñ waaw kay kooku moo cay dugg dox jëm ci loo xam ne araamut waaye dafa daa dala dul jural toyaaba wala di déglu loo xam ne araamut waaye dalu du jural tuyaaba naka noonu di ca wax mhm. naka noonu tabaarkàlla <laughs> yéen la jàngaloon euh, euh, ca gaaw dog yéex a xëdd ak nàngam nàngam yooyu day dugg fii ndeysaan day dugg fii mhm. wa kulli fikratin ak bépp xalaat radiyatin buy aji ñaaw buy aji bon buy aji yées kama am sakta ni nga bàyyee mooy ni nga téye sa bopp rek ni nga bàyyee àndil anil akli walis lekk wa shurbin ak naan ulima xamees na ko ni nga bàyyee lekk bàyyi naan noonu ngay góorgóoroo ba sa xalaat xalaat bu bon sax ngay jéem a xeex ak sa xel ba doo ko xalaat naka doon sa bëdi ak sa làmmiñ leen lu ci nekk ni nga bàyyee lekk ak naan noonu ngay sàmmee cër yi ñoom it dañoo war a woor su ko defee ñu doog koy tudde gu wér nga woor nga ci zahir sharia war nga ci baatin yàlla dog koy nangu wala tukassir bul baril asuxuura xëdd ga wal futuura ak dog ga waaw bul ko baril mumtali al batni mbir mu ngay aji feesal biir fa tuxrama ci sabab soosee ba def na la xañ al ujuura mboolem yool yi mboolem yool yi da ci def alif ak laam mboolem yool yi nee boo waree ba xëdd jotit jàppale ne xëdd ndëgër laay rek la sunna rek la sooy def waaye jubluwuñ ci nag ngay xëdd mel ne ku nekk ci aw xew ku nekk ku nekk ku demee ci kër njóobee def ñuy xëdd kiimaan lay doon kiimaan lay doon waaw day doy waar lool naka noonu booy booy dog lii moo xam naa ne bu dee ci fii suñ réew mi doy na waar bu ñuy ndogu lu ne da ko indi loo romb jënd loo romb loo romb rek indi lu ne lekk fee mburu jóge ca nangam jóge fee lekk laa ñu tegal la salaat lekk defaat nangam doo bëgg a reer nga tëdd nelaw daanaka kaseere nag nga loolu kenn xamut lu mu doon li nekkoon yoon mooy koor dépasse daa war a daa war a wàññiku waaye fii koor dépasse day yokk loolu lépp ñàkk tegu ci lislaam fekkoon teg nañ ko dëgg dëgg ni lislaam bëggee kon lekk gu bari gi moom la lislaam di bañ ndeke ba yow da nga daa xëy suba joxe ndékki joxe añ joxe reer léegi nag dara amatul lu lekk guddi buñ ko organisé woon fexe ba bu dog jotee nga fexe ba mos dara tàngal sa biir dëgëral dara sa biir daal di xaar reer reer mu jeex boo yeewoo xëdd daal di indi sunna sa kon da am wér gu yaram danga nga am tuyaaba waaye sa dépasse dana wàññi ko waaye fii koor bu koor bu ñëwee nit ñi dañuy gën a yokk seen dépasse day gën a metti ci ñoom day metti lool sax ci ñoom lépp day yokk ndax lan dañuy bëgg la leen faatuñ ci bëccëg gi ñu dabaatal ko ndékki lañ joxe dañ koy bëgg dugalaat ci ndogu li reer ba nga xam ne añ ba nga xam ne tëboon nañ ko dañ koy bëgg a dugalaat nga xam ne lépp dañ sarse guddi gi ba mu fees dell guddi daa gàtt xeetu mburu yëpp bu ci nekk da nga ci benn xeetu euh, yi ñuy naan ak euh, lu mën a doon nga indi dajale ko ak su nga suukar si lépp dajaloo ah dëgg yàlla loolu day na waar kon euh, ñàkk topp diine gis nga dafa metti da ngay ñàkk sa xaalis ba noppi ñàkk sa toyaaba ba noppi boole ñàkk ci sa wér gu yaram ñàkk ci sa wér gu yaram kon loola baaxut nee na bul baril ak dog ak xëdd feesal sa biir lool lool boo ko defee benn tuyaaba doo ko am benn tuyaaba wa kullu man képp koo xam ne am la a feesal na batnahu biiram ba taaman waaw buñ ko maasoon bu doon par benn benn taaman lay doon ci aw ñam ci aw ñam waaye weewee tax mu def taam du yàqu du dara nag nii nii la ko war a defee waaye da koy xamee noonu ci wàllu naxu képp koo xam ne feesal na biiram ba taaman ci aw ñam wa aksara mu daal di baril ashurba naan alayhi ci moom wal manaam ak nelaw ya fa innahu naka moom waajoo ji njubin boobu istawa yemoona mahal bahimati ànd ak bahima yi rek is ngir faatuhu raw na ko xayrun kathirun yiwu bari fa tawaa te alku te alku aka dëppoog li ñu def nee képp koo xam ne dangaa wor ba dog jot nga feesal sa biir bi lool ñam wane nga dugal ko ca xeeti yi naan gu ci nekk nga indi ko waaw naan gu naan gu naan gu bulaat gu sowaan ak lu ne la dajale <laughs> lu ne la dajale indi ko lekk yi lekk gu ne la dajale ah waaw nee na kooku bu noppee moom xam nga daal di xaw a gëmmentoo ci tegu cër yi moom boo duyee biir ba mu fees yàlla dallu rek la ñuy bëgg boo dalloo julli gee moom boo wëttandiku danga ko yéex a def lool wala boo koy def da ngay tàyyeel ba doo teewlu daanaka da nga koy këpp këppal daal fay jóge naafi la moom waxatoo ko moom naafi la waxatoo ko mukk bu ñuy doog euh, dugg ci koor gi ñëpp doomu jumaa ja day fees jàkkay nit ñi ngay nangam abaaye yi jar socc yi waaye may leen tuuti rek fukki fan tuuti rek day ndeysaan ñu génn ci bam jeex tàkk kon koo xam dafa feesal sa biir ci lekk ak naan ak i nelaw nga bëccëg gi am na ñoo xam ne koor gi lépp dañuy nelaw dañuy nelaw nga ne julli fajar sax duñ ko def julli fajar sarale nelaw nelaw waaw bu ñu yeewoo daal di xaw a kii daal di tëddaat liñ ci jublu mooy waxtu wi gàtt te yow dañoo bëggoon waxtu wi nga fi duy ko ak jaamu yàlla ak jaamu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne weeru koor weeru njëggal la képp koo xam ne yor nga ay bàkkaar nga dugg weeru koor ba génn bàkkaare des ak yow nee na loolu mandargam texee di la wax dëgg yàlla mandargam texee di la mooy koo xam ne jox nañ la mboolem lu mën a fóot ay yére saa boog omoog eau de lépp nangam nangam nga yor ay yëre yoo xam boo ko ci xoojee def ko ci kii bi mu set nga lànk bañ koo fóot waaw kooku moom doy na waar weeru koor noonu la mel ci wàllu fóot ay bàkkaar ba mu set waaye noonu dañ koy pastaat nelaw a nelaw ba kenn xamut lu mu doon ngir bëgg waxtu wi gàtt kon nee na kooku moog bàyyi ma yi ñoo yam ndax bàyyi ma moom loolu mooy liggéeyam bu xiifee jéem a xool lu muy lekk bu noppee jéem a naan ba biir bi fa dell bu noppee nag daal di góor tasu su boobaa nag bàyyi ma moo lay gën ndax bàyyi ma moom lool lool mooy mbiram moom kenn sëntu ko leneen moom loolu la xam waaye yow mi nga xam ne dañoo jàppoon ne nag am nga loo bëgg am nga objectif bu rëy waxuma ci àllaaxira waaye fii ci àdduna rek ku saxoo lii doo dem waxuma kooku mook bàyyi mayee ñoom wut loo lekk wut loo naan daal di góor nee na ñoo yam ndax nee na mboolem tuyaaba ji bëggoon ci weeru koor da koy ñàkk su ko defee mu daa di alku nag mu daal di alku wa baaduhum lenn ci gaa yi lenn ci gaa yi lenn ci nit ñi njóobeen yi yakulu day lekk akalal baqora lekkiinu nag waqta futuurihi ci waxtu ndogoom la wa waxtu saxara ak waxtu njël mooy waxtu xëdd xataa na ba mu nekk batunuhu biiram ba saqiilan di aji diis jiddan lool fasaara mu mujj na qalbuhu xolam ba mashxuulan mashxuulan di lu di lu ñu gàllankoor xan dikri rabbihi walis tudd yàlla boroomam wa yaddaci te muy wootee yaay af siyaama koor ga waxoo te moom kat laa yax wii du làq fatilan lu toll ne fatil fil xiyaami ca taxawaay bi bis penc nee na ñenn ñi bu ñuy eh, dog wala ñu kii comme ni nag di lekk rek nga xam ne duñ bàyyi xel dañuy lump muy dem duñ bàyyi xel seen wérgu yaram duñ bàyyi xel dara bu ñuy dog ak bu ñuy xëdd loola nag day yóbboo seen biir diis lool su ko defee nag tàyyeel daal leen dugg mujj ga xol ba nag day tàyyeel ci tudd yàlla lépp lu aju ci wàllu jàng alxuraan ak jàng nangam ak zikkar ak da cay tàyyeel seytaane théâtre rek dàq ko ak loolu rek la xale bay nekk passe rek lay nekk ak nelaw mashqulan di lu ñu soxlaal mooy di lu ñu gàllankoor maanaam xol ba daal lu yitti woote lu jëm ci wàllu tudd yàlla te kooku kat day woote naan woor naa waaw moom mi ngi jàpp ne yow mi ngi woor te xamul ne lu toll ne fàtteel ko ca koor ga fàtteel ko te te ba wax na naqiruha wahra nawaati wal fatil fi batniha yakunu maysiya bil mooy xooxu tàndarma maanaam saalu tàndarma bi am na ab xar-xar am na xar-xar bu nekk ci digg bi xar-xar boobu am na lu mel ak wëñ gu xaw a weex bu sew bu ca nekk loolu ñu tëddee fatil waaye day misaal ak tuuti waay mooy loolu mu def woor ba noppi di lump di dem rek di woote ne woor naa nee na amu lu toll noona ëllëg yomal xiyaam kon nag aadana yàlla nanu musal allahu yàlla mi ne la guruuri ci waru wa kulli ma ak lépp loo xam ne yadurru day dana lore fi duhuri ci mboolem jamono yi mun na lii de waru la ndeysaan nga xëy suba doo lekk doo naan fekk nag am na lu yàqu ci biir jaamu yàlla nga defe ne nag yaa ngi woor <clears throat> boo dégg ñu naan ko aw koor yàlla dana ci fay nangam nga defee ne yow danga am loola dem ba yow man xëyam fekk amoo fa dara loola waru la yàlla nañu yàlla musal ci waru waru ci am mbir mbir mu baax di ca sonn lu ne nga def ko ca fekk na da nga koo defiwul nañ la ko sante nga defee na nag yaa ngi ñu ngi lay bindal tuyaaba ju dajaloo rek ndekete dara baaxu ci mi mel ne kii ñaw rek te fekk fësut wañ ga fësut wëñ ga ca ginnaaw waaw di ñaw di ñaw di ñaw ba àggal ba mu ne xëcc rek lépp ne roteet mu geesu gis na ndekete ñëwut dara ndekete dara baaxu ci ndekete dara baaxu ci wala kuy denc dara di ko def ci mbuus gu bënn rek heure bu defee mu wadd moom xamu ci dara mais naan su ma àggee kër ga daal xam naa mbir mi dana war a bari moom àggee kër ga xool ndekete daa bënn kooku mooy waru mooy defe na yaa ngi def lu baax ndekete dara baaxu ca am na lu yàqu ca jëf ja te yëgoo ko yàlla na ci yàlla musal wallahu a'lam